nekk na ci téere Buxaari bi téere bi nga wax ne waxi borom xam-xam yi nga xam ne nii nangu la ñooy borom xam-xam rek la indi di la jàngal ne doomu aadama dafa war sukkandiku ci jàngaleem borom xam-xam yi nekk na ci Buxaari fi baabi fadlil ilmi ci buntu ngëneelu xam-xam وقول لا يوقي الله تعالى كمانا بخاري تتيرم أن لفا بن بنت تديكو بنت بنت بلي جانجل نريلو خم خم لجانجل وقي الله جمنا يرفو دنا يكتي الله يالا الذين قانين قمنا آمنوا قمنا منكم تيين والذين أغنين قمنا أوتوا جوحنا لين العلم قم قم يالا دنا يكتل يكتي darajaatin ay daraja wallaahu yàlla xabiirun aji dañ kumpala bi ma taamaluuna ci li ngeen def wa qawli ak bunt bi jàngale wax yàlla ji azza noot na moom yàlla wa jalla te màgg na wax yàlla jum naan waqul waxal rabbi yow sama borom zidni yàlla nga ma yokk ilman ci xam-xam <coughs> laaya jooju xaafis ترينك في فتح الباري من قال وانا الحافظ في فتح الباري في فتح الباري في شرح هذه الآية بمن لا يرى الله نقيل وحنا في تفسيرها تكفرهم نيرفع دنا يكتل الله ويا الله المؤمن الجلد العالم بأم قمقم المؤمن تكو جلد غير العالم بأم قمقم يا الله دنا يكتل درجة جلد بقم تكو خمط laaya ji nee na am na ñu ne loolu lay firi yàlla dana yëkkatil ñi gëm ay daraja waaye mu ne dana yëkkatil borom xam-xam yi ay daraja borom xam-xam yi ci ñi gëm lañ bokk kon dafa wax ne ñi gëm ñu ëpp daraja ñi gëm ñépp borom xam-xam yaa ci ëpp daraja <coughs> nga ne ko lan mooy kaweeg daraja mu ne wari faatu daraja ti kaweeg daraja te duru dafay tegtal alal fadli ci ngëneel buñ ne yaa kawe daraja li muy tekk mooy yaa ëpp nga neel is ngir almuraadu lañ na mu bii ci loolu kasratu sawaab mooy tiyaaba gu bari yàlla bu la yëkkati daraja dafay yokk sa tiyaaba waram mooy yëkkati daraja bu bihaa ci yëkkatiku tiyaaba yi wala bërig tiyaaba yi turfau la ñuy yëkkatee a darajaati daraja ya wala waga darajaatu daraja ya wa rifaatuha yëkkatikug daraja googu tashmalu dana làmboo almaanawiya yëkkatikug maanaa mooy loo mënul laal fi duniyaa ci àdduna yàlla dana la yëkkati daraja ci àdduna yëkkati daraja goo xam ne ñëpp danañ ko xam waaye daal du loo mën laal moom bi ulwin manzilati mooy da nga kawee daraja wa husni siiti ak rafet ak tàgg wala xisiya yëkkatik daraja gi dana nekk luñ mën a laal fil axirati ci àlaxira bi ulwil manzilati mooy nga kawe wàccuwaay fil jannati ci aljan kon laaya ji rek <coughs> dooyan na nit a wut xam-xam laaya ji wax mooy julit bu am xam-xam yàlla daf koy yëkkatil daraja ci kaw julit bu amul xam-xam nga ne ko mooy yëkkatiku daraja ga mooy ëpp tiyaaba yàlla daf ko defal tiyaabu boo xam ne jullit boo amul xam-xam du ko am bu dee ci àddina la boroom xam-xam bi yàlla dana ko may wàccuwaay bu kawe ci diggante mbindeef yi <coughs> yàlla may ko tagg wu rafet ci diggante mbindeef yi loolu daraja ju kawe la bu dee ci yàlla jox ko kër yi gën a kawe ci kër yi aljana yi dégg nga xam na ni moom dëkkuwaay yi gën a kawe gën a foor ci dëkkuwaay aljana yi fa lay dëkk te aljana bu la gën a kawe rek moo la daq aljana ju njëkk ji benn xurul ayn bu génn baaraamam dana fay leeru àddina bi fitnaal nit ñi ndax taar ba mu yore baaraam bi rek laa wax aljana yi ñaareel ji bu benn wóoru ay ne génnoon baaraamam ci aljana ju njëkk ji fay leeru aljana ju njëkk ji noonu it ba ci aljana ji gën a kawe mu di illiyin su ko defee borom xam-xam yi yàlla foofu la leen ni dëkkale kon fii ci àdduna ñi am xam-xam ñooy gën a kawe daraja ñu amul xam-xam ñoo leen di gën a rafet ak tagg ci àllaaxiraat dëkkuwaayu borom xam-xam yi mooy gën a kawe dëkkuwaay ñu dul borom xam-xam wa fi saxiixul muslim nekk na ci téere bu ñu tuddee saxiixul muslim an naafi jëlee ci naafi an abd an abdul xaaris alxudaaci mu jëlee ci abdul xaaris alxudaaci wa kaana nekkoon na amila omar di jaraafu omar ala makka ca makka abdul xaaris alxudaaci daf daan liggéeyal Omar ca mag maanaam Omar ko fa teg daal mu di ko liggéeyal ñu jëlee ci moom mu ne ànd ak moom laqiyahu dajee naa ko Omar bi Usfaana ci dëkk bu ñu wax Usfaan fa qaala lahu Omar ne ko man istaxlafta kan nga wuutal ah yow ma taaj la màkk pour nga liggéey yaa ngi ni Usfaan koo bàyyi màkk ndax kilifa buy liggéey ci barab war naa am kum fa ba mu wutu ko ci lim laan def moo tax ba Umar dajeeg moom daf ko laaj koo bàyyi mag qaala fa qaala Abdul Xaaris ne istaxlaftu wuutal naa ibnu Abza waaye ñu ñuy wax ibnu Abza moom laa fa bàyyi mawlan mbaa yàlla la suñ jaam la buñ goreel moom laa fa teg fa qaala Omar ne Omar ne ko istaxlafta wuutal nga mawlan mbaa yàlla maanaam daf ko bëgg wax ne ko daf ko bëgg a laaj lu gor ya nekk fi nga dem di wuutal koo xam ne ak jaam la laaju ko pour xeeb doo ko bëgg a laaj pour xam fan la teg jëfam ji sang yaa fa kilifa yaa fa nga dem seet koo xam ne ni ab mbaa la nga wuutal ko makka mu wuutale fa lu waral lool qaal abdul xaaris ne ko innahu nag moom qaariun aji jàng la li kitaabillahi ñeel téere bi yàlla ba aalimun faraidi ku xam miraas la ko ndax kat jàng na alquran mën na ko yàlla may na ko ci fiq mu dégg miraas lool loola waral ma teg ko ci kanam ñëpp alquran jooju ak xam-xam boobu fa qaala omar omar ne ko amaa in amaa yégal na nabiyakum naka seen yonuntu qad qaala wax na ne inna laa naka yàlla yarfau dana yëkkati bi hadal kitaabi ci bi la téere aqwaaman aw nit waaye dama te dana ci wàcce aaxari na ñeneen amar na ko waa góor lii de la yonent wax alquran yàlla mën na cee fekk nit koo xam ne ni doon woon dara kenn xamu ko woon kenn tegut koon fenn mu yëkkati darajaam ci jàpp gi mu jàpp ci alquran waaye moo naa fekk ñu fooroon lool woon gannaaw alquran yàlla wàcce leen ba amatuñ benn ngëneel amatuñ benn daraja daf ko bëgg wax ne ko ci alquran la lay yàlla di yéegee ñi muy yéegee ci jàpp ci ci jàng ko ci jikkoo ko ci jàngale ko <coughs> fexe ba nit ñi jikkoo ko loolu rek ci la yàlla di yëkkatee waaye wan gannaaw loolu mooy tax yàlla wàcce la loolu la ko Omar bëgg wax ne ko wax nga dëgg li nga def noonu la mbaa yàlla la waaye bu jàppee ci alquran yàlla mën na ko yëkkati ba mu jiite ñëpp dégg nga lii dafay dëggal laaya ji weesu ne yàlla dana yëkkatil jullit bu xam daraja ci kaw jullit boo xam ne xamut xadis bi daf koy dëggal yàlla dana yëkkati aw nit ci alquran waaye dana wàcce aw nit ci alquran alilmu yarfamu baytan la imaadullah waljahlu yahdimu baytal izzi wa sharafi xam-xam dana fekk kër goo xam ne amul benn keno mu nekk ay potoom nekk ay kenoom nekk tabax ba daal di ko yëkkati waaye dana fekk kër gu kër ak teraanga gu ma sëkk waaye xam-xam génn fa kër ga dal di mab mel ni poto yi dañoo daanu su ko defee <coughs> loolu sëriñ bi jàngalul la ko lu mooy mu woon la ne boo bëggee ak kawe ci yàlla waxuma ci àdduna jàppal ci alquran àddina it moom mbir yi mën naa soppeeku kaweeg daraja ci borom xam-xam ci àddina wax naa la wax na la ne du lu ñuy du xis du looy mën a laa waaye maanaa la lu jamono yàqu-yàqu yàlla dana dana dana def xëyba ak wegeel ci xolu nit ñi danañ xam ne dëgg-dëgg diw jàmbaar la te it tagg wa dana rafet ci xolu ñi nga xam ne ni yàlla setal na seen xol dégg nga lu rafet ci ñëpp nag ndaxamul kenn ku rafet tag tagg ci doomu aadama yëpp yàlla sax amul loolu waaye nag nii seen xol set daañu la tagg sa daraja dana kawe ci kolu ñëpp xataa ñi la noonu danañ xam ne waay kan ci yàlla yëkkati la daraja ci aljana nga kawe ñëpp dëkkuwaay loolu mooy yëkkati ko borom xam-xam amma ci zaahir fii ci àddina borom xam-xam bi mën naa bañ a yëkkatiku ci ci yëkkatiku goo mën a laal hmm? jëlee yàlla mën na ko yëkkati yëkkati goo mën a laal léeg-léeg nga gis jaahil bi ëppale aalim bi ci àddina nag laa wax waaye du ko ëpp daraja du ko ëpp wegeel ci xolu nit ñi du ko gën a rafet ab tagg waan zeyd bun aslam jële nañ ci zeyd doomu aslam fii qawli taala ci wax yàlla ju kawe jum naan narfon danañ yëkkatil darajaatin ay daraja na nashaa'u ñu neex yàlla ne ñooy xool ñu ñu neex ñu yëkkatil zeyd ne qaala mu ne bil ilmi ci xam-xam bu yàlla bëgg bëgg yëkkati daraja daf lay jox xam-xam <coughs> dana laaju noonu lay firi yàlla dana yëkkati daraja ñu ko neex waaye ci xam-xam <coughs> dana laaju noonu lay firi kon boo bëggee sa daraja yëkkati ko demal jàngi xam-xam boo bëggee raw nit ñi ci àllaaxira ci dëkkuwaay góorgóorlu ci xam-xam <coughs> wa qawlu ak yàlla azza noonu na wajal na te rabbi yow sama borom zidni yàlla nga ma dolli alman xam-xam waadixu dalalati tegtal gu leer la fi fadlil a ci nga wax na ne yow yonent bi sallallahu alayhi yàlla ne nga ma dolli xam-xam mu ne loolu tegtal bu leer naññ buy wane ne xam-xam a gën lu dul moom ndax bu amoon lu gën xam-xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci loolu lay ñaan yàlla ndollal waxut ne yàlla yàlla nga ma dolli lenn lu mooy yàlla yàlla nga ma dolli xam kon dafa fekk ne xam dafa gën lépp moo tax mu sañ loolu dégg moo tax mu ne li anna laa ndax yàlla na lam yamur digalut nabiyahu yonentoom sallallahu alayhi wa sallam bi talabil izdiyaadi ci sàkku min ci dara illa min al ilmi ci xam yàlla digalul yonent bi mu ñaan ndollal ci dara lu mooy ci xam-xam lii dana war a ne min al ila lahdi nga koo mën a dégg ko xam ci lay la booba ci bàmmeel maanaam li jàppal na si jàng nga nekk ba léegi lu la yàlla mën a may ci xam-xam rek jàppal ne am na lu des bu fekkoon ne nit mën naa peeg xam-xam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono jooju mu tolloon gannaaw bu ko yàlla xam xamlee lépp du ñaan yàlla yàlla dolli ko xam-xam yonent bi bu ñaan dollal ci xam-xam rek asuma keneen ku dul yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam kon saa su nekk rek <coughs> jàppal ne yaa ngi jàng pour yokk sa xam-xam xam-xam bi bàyyi di tagg alquran di ko tagg borom xam-xam yi di ko firi moo di ban xam-xam ndax mooy xam ni ñu sàccee ولا لا موي خامني ناري ولا مو موي خامني ترياي موي موي خام خام لا ديري تو خام خام بوبو واي خام خام بولاي جيغال سا كم كم شريعه لا لا تك تك خام خام معرفه والمراد لن نم بالعلم تي كم خام العلم الشرعي كم كم خام الشريعه xam kambi nga xam ne ni yonent yàlla mohamad salalla alih sallam moo ko jëlee ci jibril mu jëlee ko ci yàlla mu andil ko jaame yàlla yi boobu dee lay alquran di tagg ci boobu it la yàlla yëkkatee daraja pas yeneen xam-xam yi nga xam ne ci yeneen fànn lay dox <coughs> waaye xam-xam goo mën a jàngit bu su yeneen sellee mën nga ci am tiyaaba boo jàngee ni ñuy faje jublu ci jaamu sa borom dégg nga mindeef yi nga xam ne sonn nañ nga xettali lan yow da nga dugg ci sharia ba léegi ndax sharia bëgg na ko xettali doomu aadama booy jàng na ñuy commercer waaye jublu ci am alal joo dimbaleel islaam xettali ci jaamu yàlla yi ndax yàlla la ko sant ah su boobaa xam-xam boobu wasiila la de bu lay jégal yàlla su boobaa loolu nga ci am tiyaaba waaye ah, bu fekk yàlla joo noosee rek nga ci wut soo xam-xam boobu taxul ñuy <coughs> boo seelalee yéene mu soppeeku xam-xam bu yàlla tagg boo seelul yéene ji nag yàlla rekk a xam <coughs> kon xam-xamu sharia lañ tagg <coughs> allazi bi nga xam ne ñu fiiru dana jëriñ maarifata maa yi ji mu xam la dana war mu mukallafi ci mukallaf bi min amri diine ci mbiru diineem xam-xam bi nga xam ne li muy mooy mukallaf bi xam diineem boobu lañ tagg fi ibadat yi mu xam wàllu jaamu yàlla wa muamalaat yi ak ni mu war a jëflanteeg doomu aadama yi muy fiqul ibadat ak fiqul muamalaat mu xam lépp lu aju ci wàllu julleem xooram azakaam ak yu demee noonu xam nu mu war a jëflanteeg dëkkandooram ni mu war a jaayantee ni mu war a jëndantee ni mu war a jëflanteeg ay soxnaam ak njabootam yooyu yëpp mu xam ko su ko defee xam-xam boobu la yàlla tagg wala yàlla mu aqam billaahi ci yàlla wa sifaati ak melom bokk na ci xam-xam yàlla tagg xam yàlla xam ay melom wa ma ak li nga xam ne yijibu dana war lahu ñeel yàlla min al alqiyaami ci taxawee bi amrihi ci ndigalam wa tanzihi ak setal ko ani naqaayisi walis wàññeeku yi bëgg na nit jaam bi xam li ko war digganteem ak boromam santaane yi ko yàlla sant mu xam ko te jéem koo taxawee <coughs> xamit bu ko ci taxawee lu ko cay fekk ci tiyaaba ak bu ko la ko cay fekk ci mbugal mu jéem a setal yàlla jommale ko lépp loo xam ne ak wàññeeku la lépp loo xam ne yellut càq yàlla dafa fexe jàng ba xam nu koy seetalee ci boromam subhanahu wa taala maanaam koy moytoo yàlla moom set na ba pare yow kay yaay moytu tuumaal yàlla lu nekkut moy mooy setal yàlla wa madaaru zalika lefab loolu wala tafsir yi mu ngi ci fii alquran wal fiqhi la ak ak fiq nee na boo mënee tafsir alquran dégg sa diine rek su boobaa da nga xam ni ngay jëflanteeg jaam yàlla yi da nga xam sa digganteeg sa borom yàlla yàlla sant noo koy defee da mën a xam yàlla ki meloom da mën a xam li la yàlla sant ak la la ca war yii nga xam ne nii xelul ci yàlla da nga ko mën a moytu ba doo ko askane sa borom soo mu maîtriser fànn yi mu la wax muy tafsir ak fiq daal alquran lépp ngi ci fiqu fi diine nag mooy yàlla may la nga dégg diine lu nekk rek xam nga lu ci yàlla santaane loolu la yonent wax man yuridlaahu bi xayran yufaqihu fi diin mafhumul muxaalif mooy wa yàlla bëgg ci yow yiw daf lay déggloo nga déggee ci ci yow yiw du la déggloo diine <coughs> kon xam-xam ngoogu muy xam-xamam sharia moom la yàlla di tagg noonu yàlla nag lu mu tagg rek lu kawe te daf koo teg moom xam-xam ci état bi gën a kawe fa taamal seetantalal qawla saydina omar waxu suñ sang omar radiallahu anhu yàlla ko yàlla ne ama inna nabiyakum yëgal na seen yonantu qad qaala wax na ne inna laa naka yàlla yarfamo dana yëkkati bi hadal kitaabi ci bi téere aqwaaman aw nit yettadihu dana leer lakum ñeen leen almuraad lañ bëgg a wax omar nee na yàlla mën ay nit yëkkati leen ci téere bi gannaaw buñ ko tuddee ne jiital nañ koo xam ne ni si zaaxir dafa mel ni mbiram daal bu doon askan rek moom du jiite kenn ko defee Omar ne yàlla dana yëkkati ci alquran aw nit nga déggee ci ne lim bëgg a wax mais boo jàppee ci alquran rek koo mën a doon ak ku la mën a jur sa daraja daal dana kawe yàlla dana defam jiit ci àddina def la ko ci alaxira yëkkati ko daraja ci àddina nag mooy rafet ak tagg ak ak kawe ci xolu doomu aadama yi yëkkati gu daraja ci àllaaxira mooy nga kawe ni ñi kër ci aljana lii la yàlla dem ci xam-xam yàlla ñu ko yàlla wërsëgal te boole ñi ci borom xam-xam yi ko defee nag mu bëgg wax ne lii ci yàlla la am ak ak démb sax borom xam-xam yi zaahiran ñu daan gën a kawe daraja maanaam yàlla dana leen dimbale daal di zaahir mu ne waaye tey moom affaire yi ci nit ñi boo xoolee mën ngaa gis ne na waaye ci yàlla du mos a changé dama waaye tey fa kama qaala Burzuli comme nu Burzuli wax bàyyi na tey de li Burzuli wax rek moo fi nekk laqad darasat ràpp na turuqul ilmi yoonu xam yi fi haaza zamaani ci biir jamono bu dee tey nga bëgg a xool de yoonu xam-xam yi ràpp démb nit ñi dañ naan ci xam-xam rawante ci ndax foofu la nekkoon waaye tey yoonu xam yi ràpp na su bëggee jàng fiq amaan am na téere yoo xam ne boo ko tàllalee doo gis ko la ko jàngal mën ngaa dem ci dëkk ba dëkk jeex te dëkk diine la mën a doon kat waaye am na téere yoo xam ni soo ko tàllalee mën ngaa bañ a gis ko la ko jàngal naxu noonu luxa noonu maanaam yoon wi ngay jaar ba am xam-xam moo fa rab ràpp léegi subhanallah <coughs> bu defee nee na tey lii moo xew mooy jàng yombatul ndax yoonu xam-xam yi ràpp na kenn ku nekk war naa góorgóorlu ba dékkil li yàlla mën a dékkil ci moom yoon yooyu nga xam ne dafa ràppoon te boroom xam-xam yi doon fa jaar démb doon ci rawante ndax rawante bi ci foofu la nekk wana akasat safa noonu alxaqaayiqu dëgg-dëgg yi maanaam lañ xamoon dafa changé léegi la nekkoon mbaax léegi mooy mooy ndëng la nekkoon dëng mooy mbaax lii man moo ma gàggante bu dul woon lii man du ma gàggante ko ba yaay mi diine ndax daan naa laaj ci ndax léegi njub gi moo soppeeku nekk mbon mbon gi nekk njub la mag ñi nekkoon léegi moom moo moom mooy dëng li na ñu nekk tey loolay mbaax wala boog nu mu demee <coughs> waaye alhamdulilah lii mooy tontu bi mooy mbir yëpp soppeeku fi mu nekk fi mu nekk ni mbir yi changé na lool ka <clears throat> nekkul woon sëriñ léegi mujj na nekk sëriñ nañ doon def kilifa léegi ñoom ñooy baadoole yi la doon xam-xam léegi moo di réer la doon réer léegi moo di xam-xam la doon njub moo di dëng la doon dëng démm moo di njub la borom xam-xam yi waxoon loolu du tus li nitu tey yi wax loolu moo di tus dëgg-dëgg mbir soppeeku na ni ko buur Bourdieu waxee bàyyi toxalee ko noo rek la amee te képp ku dund ci jamono ji xool ci sa bëti xol sa xol dina xam ne loolu moo am di la sa làmmañ nangu ko tudd ndax doomu aadama yi dafa am ñoo xam ni dañoo ñeme yàlla <coughs> sóoraale wuñu yàlla seen wax waaye doomu aadama bu nekk war naa sóor ne saa su nekk yàlla rek mooy ki fi ne su ko defee ngërmaaneem rek moom nga war di sàkku damay wax ne yàlla moo lay sant dara ne la defal ba pare moo ñëw taxaw sa kanam ne la ko def pour nattu la loolu sa kanam nag bu dee moom ngay wut ngërmaaneem da nga wax ba pare mu la cëm est-ce que yàlla lay nattu rek waaw moo lay sant rek nekk sa gàllankoor pour nattu la parce que li lay gàllankooree moom moo ko dogal bu defee sóoraale sa borom boobu di ko fuuglu ci lépp looy wax ak lépp looy def booy wax na nekk dëgg booy def na nekk dëgg mbir yi <coughs> safaanoonu bu baax a baax ci ci ci ci jamono ji ci jamono ji da nga gis réer goo xam ne ni da nga naan bu doon xam-xam a ngi dox ñaar duñu werante ndax réer la am du réer réer gi nag mujj mel ni nekk nekk dëgg borom dem ba mujj sax mel ni lu ko gëm te ci jaaxaan rek la nekk kër wallaay ah léegi-léegi nga gis ñu encouragé réer googu te ci zaahir ay kilifa yu mag lañ mbir mi da ngay dem ba mujj daf lay jaaxal lii lan la lii lan la man dama naan parce que man tuumal sama bopp ma ne man xanaa maa déggatul li ma jàngoon ah? waaye dafa mel ni affaire yi safaano <clears throat> waxu di la ñu jeng bil manasibi charia ci ndomba tànk yi nga xam ne këjug charia la maanaam yi nga xam ne charia moo koy fale ñu jeng ko am man yastaxiquha jëlee ko ci ku ko yeeyoo ilaa man jëm ci ki nga xam ne laa yastaxiquha di ko yeeyoo tey lépp loo xam ne ci charia lañ ko doon fale ña ko yeeyoo joxatuñ leen waaye ña ko yeeyowul lañ koy jox moo xam jàkk yi la jàkk yu bari boo demee bu imaam bi xutba rek nga xam ne dëgg-dëgg kii te mun jàngiwaat moo gën a yell ci moom mu moom mooy jiite mbooloom bu jàngee alxuraan nga bëgg a daw bu waxee nga bëgg a génn jàkk yu bëri sax amaana doo fa mën a julli ndax dëgg-dëgg daf lay wóor ne la imaam ba xam-xam falu ko waaye leneen a ko fal ci koñ ba mu boole ci xëccoo gu ma sëkk nag ak ak fiiraange goo xam ne yàlla rek a xam nu toll toll nañ foofu ci jamono boo demee ci palaato tele yi wax naa ne ñu ëpp ci ñu diriger plateau yi <clears throat> du xam-xam moo leen fa yóbbu du moo leen fa tegit waaye leneen ak leneen rek moom moo leen moo leen yóbbu ci barab yooyu moo tax waaraatekat yi léegi ñu ci bari ñoo gën a ñoo gën a reer ñoo gën a dëng ñëpp nit ñi jëreetuñ ci ñoom benn leçon ndax palaas boobu du yelloo ko moo leen fa taaj daanaka comédien lañ fa nekk ak i caaxaan lu yàlla xam doone daal ñu bari ci ñoom du ñëpp nag waaye ñu bëri noonu lañu mel barab yi nga xam ne ni ñoo war a gind nit ñi yi nga xam ne ñoo war a def ay waxtaan pour gind nit ñi ñoo ñoo ñoo gën a réer ñëpp am na ci ñoo xam ne jànguñ dara jànguñ dara ñu ne ñooy jubbanti nañu teg leen ci yoon te yow xamoo yoon ab yàlla ak yonantoom te yoonu yàlla ak yonantoom moo mën a gind nit ñi toog gerefaas gerefaas yaa ngay wadd maanaam mees ngay wadd ma nga sol lu gàtt lool mu ne moo yee nit ki koy seytaan pour mu tegu siraatal mustaqim te moom teguwul ci siraatal mustaqim su ko defee xam nga ne dëgg-dëgg mbir yi soppeeku na loxo yañ ko waroon teg tegatuñ ko fa dégg nga <coughs> imma benn bi jaaxin ci daraja indoo ba nekk fa mu li tax ñu jël daraja jël loo xam ne mbiram sharia la jox ko ko yelloowut amaana daraja la am nag ay façon benn campagne <coughs> wala boog ah, yàlla may na ko wala am na alal alal ji nit ñi yaakaar nañ ko ñu ko jiital ci loo xam ne ni mbiram sharia la taxamu ci tus waaye ma benn bi kaw ne ci nekkam li abi ñeel baayam wa nax wi wala yu benn baayam ma ko yoroon baayam génn àddina ñu ne ko aywa yow la ñuy fal hmm, loolu nag wax dëgg yàlla dangay wax na ni ñu amee fulla suñu àddina bu ñu ko amoon fulla suñu diine duñ perte suñu àddina si am nañ ci fullaay duñ ko dénk ku ko xamut boo xamut dara boo ñëwee nar ñu dénkale suñu àdduna jugal fële lañ lay wax demal rek doo dem dugg ci oto boo xam ne wóor na la chauffeur bi mënul dawal chauffeur bu mënul dawal moom oto ba xalaatoo ci dugg sax hmm? sa bàyyi doon dawal avion taxul nga mën a dawal ñuy dawalee soo bëggee bu sa baay wàccee nga dawal avion ba da dem jàngi ko muy génn àdduna ndax su demee ba dawalatut da nga mën a dawal waaye doomi safoor kon xaaral ma jox ko oto bi mu yóbbu ma kenn xalaatul ko ci àdduna dégg nga doomi docteur la rek xaaral ma jox ko sama yaram mu opéré ma kenn xalaatul ko ci àdduna lu tax doomu borom xam-xam la rek doomu kilifa la rek xaaral ma jox ko sama diine Muhammad ma ci nga xalaat ko dëgg yow sa mbiru àddina nga gën a fonk ci sa mbiru diine boo fonkoon sa mbiru diine loolu doo ko doo ko def doo ko def kon su ko defee diine lu nekk lu ñu yelloo la waaye du lu ñuy donn du loo ñëw jagleel ko sa bopp te nekkul ci yow kon <coughs> am na ñoo xam ne <coughs> ci daraja lañ leen fale ñoo xam ne ci seen bàyyi lañ leen fale ak yu mel noonu fa tawallaaha ñi méngoo mbir ma bil irsi ci ndono ñu donn te diine du lu ñuy donnante waaye lu ñuy lu ñuy faggu la su ko defee lii Bursili Bursili wax bàyyi toxal ko lii rekk moo fi nekk ci jamono jii nga xam ne moom la ñuy dund dégg waaye lii lépp du tee yàlla dana yëkkatil borom xam-xam yi daraja ci àddina ak ci ak ci àllaaxira dégg bu la andilee lii daf la bëgg nga moytu bu ci bokk yow bul bokk ca gaaña bu jàppale ña bokk ci gaañi waqad zakara tudd na suraaxu risaala ñey leeral risaala ni na min al bidaa yi bokk na ci bidaa al mujma yiñ dëppoo ala taxrimiha nga xam ne bidaa la ci teg seen nag mu xaraam bidaa gu xaraam te safar lay yémee boromam ni ko yonent waxe bokk na ci bidaa gi ñëpp dëppoo mooy taqdimul juhaale jiital ñu réer ñi àll ulamaa yi ci kaw borom xam-xam yi fekk ku réer ko xamul dara nga jiital ko ci kaw borom xam-xam dëgg-dëgg loolu bidaa la boo xam ne ni ñaari borom xam-xam werentu wuñ dafa xaraamum xaraamul ñoom ñëpp dëppoo ne ni loolu dafa xaram léegi nag yaa ngi gis lu mel nii lu bëri bëri bëri wa tawliyatul manasibi ak joxe ndomba tànk yi ak charia bi këju charia bi tawaaru ci ci ndondante li man ñeel koo xam ne laa si wéru lahaa ñeel ko koo xam ne nii mérito wut ndomba tànk bi bu fekkee bàyyi ma ci nekkoon te mu mérito na ko àllu yàlla la ñu jox ko ko su ko waaye nag xam-xam matee na ko mérito na ko lu yelloo la ñu jox ko ko waaye koo xam ne nii méritowut ko ñu fal ko te lañ ko fal jëm ci wàllu shariatu loolu la wax ne bidaa goo xam ne ñëpp dëppoo nañ ne loolu bidaa la <coughs> su ko defee jiit daal ñu jàng ba xam mbir mu nekk ñi ca xam ñoo ñoo ko jiit naqalahu toxal na lii al mahdi fi xaasiyati ca feggalam gaal rasmu kii ci rasmu kii ab téer ab sharx mu def ci xaasiye ci wet ga indi na ci lii <coughs> ne borom xam-xam yëpp dëppoo lañ ne jiital ñu réer ci kaw borom xam-xam yi ci sharia ngir ndoona rek wala yu demee noonu kooku dafa xaram kama qaala comme nu wax fi ruuxil bayaan ci ruuxil bayaan inda qawli taala ci wax yàlla ji ko jum naan laa yadurukum bu mu leen lor on dal la ka réer na idax tëddaytum bu ngeen jubee su ngeen fexee ba jub kuréer <coughs> bum leen lor dégg nga yow tegu nga siraatal mustaqim tegul ci siraatal mustaqim kaaw ci siraat yoon wu nekkul siraatal mustaqim nag moom affaire am la bul ko toppandoo bul dugg ci mbiram yow bàyyi ko ci réeram rek loolu du la yàqal du dara laaj yi nag teg ku ne waroo digal nit lu baax waroo leen tere bon déedéet loolu taxul jug laaj yi waaye góorgóorlu lu bon lu ne bul ci dugg mu ne walay sa nekkut maanaam laaj yi ci la wax ne walay sa nekkut li taalibi ñeel kuy sàkku xam-xam an yeltafita mu gertu fi asnaay sulukihi ci biit sooboom إلى أحد يمسكن من أهل سرق شنين دقو والإرادة أقنم من المام يبقي الله بأن يقبله تي وعيش سرين بننغو كل يربيه فرمو يركو ويغتر ميور ممتالب بأنون مم شيخ سرين لا يقتدى هذا يروي به تموم إلى أن يتم بمت سلوكو أقصوبهم بتسليك مسلك تسوبك أجي صوب كامل بأجمت واسين بأجي يقشي الله من يلو تبين تالبك mu gersu jamono ba muy dox jëm ci yàlla loolu mooy sóobu mu gersu ànd ak ku dëggu ku bëgg yàlla maanaam nit warul ànd ak ku xam yàlla ànd ak sëriñ sëriñ bi accepté la pour yar la pareegoo yow nga yaakaar ne léegi sëriñ nga bu mat boo xam ne war nañ laa bi mayeegul la ndigal mu ngi la yar pareegul ci yow dégg la yow jàllar bi ku nga dem ci sëriñ bi pour mu yar la sëriñ bi nangul na la loolu <coughs> accepte na la mu ngi la yer parego nga commencé xoru ngir daraja jim la jox wala yeneen ak yeneen ah ne yow sëriñ nga buñ war a roy te sa soobu matagut sëriñ bi joxagul la ndigal dëgg dëgg nee neen loolu kenn wër koo def kon taalibe waru dem di tarbia eh, jox boppam nit kum yaakaar ne mën na ko jubbanti sëriñ boobu accepté ko pour yar ko moom taalibe bi seytaane wax ak moom ne ko yow di léegi sëriñ bu mat nga bu la neexee nga beru dégg nga nit ñi mën war nañ laa commencé roy mu ne loolu jaaduwul lu mooy sa soo bu mat boo sooboo ba li nga war yoon yi nga war a jaar dem nga jaar lañ la war a tàggat dem nga tàggat ko su ma in yaraa bu gisee cheikhu <clears throat> sëriñam an na la wu ko martabatu cheikhu cheikhuqa garaatu sëriñ way sabbituhu mu dëgëral ko bi ishaarati taxqiqi ci junj dëggal la fi maqaami tarbiyati ci maqaama yar jaam yàlla yi wa daawatil xalqi ak xoomindee fa xina idin jamono boobu sëriñ may ko ndigal ya dana dagan la wu ko an yakuna mu nekk haadiyan di aji ginde murshidan di aji jubbanti nit lil mursida ndaa ji jubbanti lil muridina ñeel taalibe ya bi ixtiyaatin ci wóorlu nag waa firin gi aji law nee na boo ànd ak sëriñ mu di la yar bul xoru mukk ne yow kuñ war a roy nga lu mooy bam la jaaralee fi nga war a jaar yëpp te moom na nekk sëriñ bu mat bu jokk ci yàlla moom sëriñ boobu su demee ba sa sëriñ gis ne yow kat léegi yegg nga ci maqaamab sëriñ mu junj la nam lay junjee wala na ne xel na ci yow nga yar mbindee fi xooleen ci yàlla nga demee ba sa sëriñ la pour nga yar mbindee fi xooleen ci yàlla ne loolu lu dëggu la ci yow su boobaa mën ngaa jubal nit ñi ndax am nga ndigal waaye nag na nga def ixtiyaat na nga wóorlu bu baax maanaam na nga moytu bu baax a baax a baax a baax baax ndax yoon boobu yoon bu gën a gaaw la pour yàq nit xataa boo demee ba am ndigal na nga moytu ñun ci yàlla daaw dafa ko yàlla mayee ndigal daf na ko wala tattabil hawa bul topp sa bànneexu bakkan kon yow tamit même bu la sëriñ mayee ndigal ki yàlla may ndigal na ko bul topp sa bànneexu bakkan moytu yow it bu yàlla mayee ndigal na nga xaw mindee waaye bi ixtiyaatin waafirin nga moytu moytu gu law maanaam fexe ba bul dugg ci xam ne nii na yàq diine yàq diine ña nga àndoog ca ci yàlla wala nga ne bi ixtiyaatin waafirin <coughs> mooy <coughs> su fekkee am nga sëriñ bu la may ndigal ah, ba nga tegu siraatul mustaqim sa xoote dafay nekk day ànd ak gu ma sëkk maanaam say xoote dafay ànd ak moytu lay yàqal ndax lay yàqal jaam mooy xoote te amut ci ndigal faqad qaala wax na taala yàlla mu ko wali kulli qawmi ñeel na bépp nit haadin aji jubal yàlla nee na ku nekk rek am na sëriñ bu la booleeg mbooloo mu nekk am na ñum leen kum leen booleeg ñu war koo jubal loolu ci nu wóotu ba ci wilaayat su noonu la <coughs> mbooloo mu nekk am na ñum leen booleeg ñu war leen ñu war ko ñu war a am na kum leen booleeg mu leen a jubal hmm? su ko defee yow it waroo nangu ne sëriñ nga bu ñu war a roy te jaaroo ci ku la gindi nga war a jaar ci koo xam ne dana jubbanti teg la ci yoon may la ndigal nga door a commencé di jubbanti taalibe léegi nag dangay gis ko ànd ak sëriñ ba mu ne maa man sëriñ bi maa ko mën aywa léegi ñëw leen ci man dégg nga gën a gën a bëri waa ñëpp hmm? loolu am na ci ci jamono ji di la wan ne lépp safaano jamono yoo xam ne boo jàngut wala yeewoo mën ngaa jàng ba pare sa ñàkk yeewu sax ki jàngut ñëw jiital ak a bëri ku jàngut ndax ku jàng yàgg bu xam-xam de waaye moom moo la gën a bëri wax bu mel ni moo la ëpp xam-xam fekk wallaay xamul dara loolu am na ci jamono ji raggalante gannaaw gi bëri fi lool ak tappale ba ci mbiram yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ciy tappale di ci raggalante gannaaw loolu bu yi safaanoo woon du am bu njëkk ci dëgg rek lañ laa jiine wali kulli qawmin haadin mbooloo mu nekk am na ku koy jubal am na ku leen jubal man nga cee dégg ne jamono ju nekk rek am na koo xam ne mooy kaamilu asru boobu mooy aji mati jamono jooju di ne loolu xaddiya la boo xam ne ñu bëri bëgguñ ko dégg ndax lan ndax jamono ju safaanoo ji rek wa ne nekkul nit mën a weddi <coughs> ndax tegtal yu bëri yi ci ñëw waaye wax naa ne toll nañ ci jamono joo xam ne lépp lépp lépp lépp safaan ki jar yërëm mooy ku jàngut yeewut nga xam ne dafay dégg ñu koy wax rek su wutee bi bëree xaw ma naka lay gindee ko yellante ko ñu jàng dimbale ñu jàngut wax leen dëgg jamono ju nekk yàlla bind na koo xam ne ni moom mooy kaamilu asr boobu dégg nga e, kaamilu asr boobu nag xalifa bi yàlla la ci kaw suuf lii indi coori nag mooy boo diw xalifa baay la wala boo xalifa baay am na ñu loolu mënu nekk waaye xalifa yàlla kon mën naa am kon hmm? léegi da ngeen bàyyi buub rek comme xalifa bàyyi moo leen dérange da ngeen bàyyi buub ngeen wax xalifa xalifa yàlla gannaaw xalifa yàlla moo gën a foor xalifa bi yàlla fu mu a amee rek xalifa bi yàlla <coughs> tekkiwul ne nit ki lépp lu nekkoon ci yàlla mu ngi ci moom hmm. loolu ku waxoo dëgg da sos yàlla kenn du ko wutu noonu waaye am na koo xam ne moo wutu yàlla ci kaw suuf nekk mahallu nazaratillahi fi xalqihi nga xam ne may yàlla yàpp ci moom la ko yàlla jaar loolu lañ na mucc xalifaab yàlla xalifaab yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent yi la woon yonent bu nekk sa jamono yaa wutu yonent bi waaye taxut may yi nekkoon ci yonent bi nekk ci yow yonent baa ngi dund ay maqaama yoo xam ni boo ci jegoon benn yow yonent boobu rek lakk kon kooku jotoo ko nekkoo xalifaam wuutuwoo léppam waaye nag dëgg-dëgg tey ci kaw suuf li war a jaar ci mbindeef bi ci yow lay jaar bu jugee ci yonantu ci yow lay jaar ñëw ci mbindeef yaa wutu yonantu bi ci liggéey bi mu waroon a liggéey bu wàccoon ci doomu aadama loolu rek mooy xalifa yonantu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ko defee xalifa Cheikh Tidiane noonu rek la mën a demee xalifa Baye noonu rek la mën a demee su ko defee nga dégg ci ne Baye kenn mënu ko donn ci jël maqaamam lépp gàddu ko nga xam ne nii fu mu yegg ci yàlla yegg nga fa ci yàlla xala mustahilun loolu dafa jomm wa illaa nag koo xam ne ni mooy kaamil asri bi nga xam ni ma madari yëpp ci moom lay jaar di dem ci waliyu ak waliyu bu mu mën a doon ci jamono kooku mënu ñàkk ci kaw suuf <coughs> dégg mbir yi safaanoo na yi jaxasoo na ba da dégg nit mu ne xalifa baay mooy kenn ku nekk rek dégg nga maanaam mooy kenn ku nekk rek jël nga dara kii jël na dara kii jël na dara ñu séddoo ko daal hmm? waaye alquran wax na ne wa fawqa kulli zi ilmin alim ki nga xam ne nii aalamu naas moo gën a xam ci ni ñi kooku lañ namm ci kaamilu asrihi ci jamonoom <coughs> naka la nit di weddee ne kaamilu asri am na te jàng maani ba pare mën a weddi jamono dana ñëw joo xam ne nii kaamilu asri amut man dool man daal jaaxal na ma soxloon naa it ci gàggante bul woon jamono ju safaanu jaakaar naa ne loolu kenn du ko wax ndax wala ma ci kaasif bàyyi wane na ne kaamil asri doomu aadama lay nekk mu indi xadis bu mu lay jëlee ku ci yonent bi sallallahu ne bis penc du taxaw te fekk wa fil ardi nekk na ci suuf si insaanun kaamil doomu aadama insaanun kaamil la ko tuddee foofu insaan la ko tuddee mu wane ne kooku dafay dee ndax wane na اندينا حديث بوم جيري سي نبي صلى الله عليه وسلم ني يامدو جو نيك امنا كين كو خامني مو تاخاو سي مقام يونت الله محمد صلى الله عليه وسلم كوك إنا نمو سي كامل اصل ام نينت يكو وور سي مقام صحابي ابو بكر عمر عثمان علي ام جروم بن يكو وور ام نين فوك يكو وور ام نيت تيمر يكو وور نيون لين تودي رجال الغيب loolu it ñoo na ci jawaayir Cheikh Tidiane indi ko mu ñëw ci téere tariqa yu bëri ak téere sufiyanke yi dul jeex mu ne kenn kooku bu génne àdduna yàlla dafa jël ci ñeent yi mu remplace ko bu doon maqaama la maqaama du dee bu fekkee da ngeen dañu bëgg a wax ne eh, kaamil asri mooy maqaama Cheikh Ibrahima maqaama moom du dee ba nit di ko remplace te maqaama bàyyi keneen nekk fa foofu bàyyi rek fa nekk waaye kooku doomu aadama la te dee jaadu na ci moom moo tax mu ne bu dee kenn ci ñeent yi moo koy remplace ñeent yooyu yàlla jël kenn ci juróom benn yi mu remplace leen ñeent fukki yi kenn ñëw ci juróom benn yi ñetti téeméer kenn ñëw ci ñeent fukki yàlla jël ci amatu naas yi mottalee ko ñetti téeméer yi nga xam ne kuréel googu duñ fi jóge bàyyi ne wal waaxidul mazkur huwa al xutb kenn ku ñu tudd ci hadis ba moom mooy xutb hmm? moom lañu tuddee it xalifa yàlla comme ni ko Cheikh Tidiane waxee ñoom ñëpp ne madadul aarifina tëbbu aarifina yëpp ci seen jamono ci jamono xutb boobu ci xutb boobu la ñuy <coughs> la ñuy jëlee dégg nga waaye nag bu fi jógee rek maanaam ci gàttal bis penc ci taxaw kon soo xëyee gisoo bis penc ci taxaw rek gaañaan fa gaañaan fa bul ne gaa ñi nekkuñ fi ñëng fa su ko defee <coughs> nañuy wax nit ñi dëgg hmm? Eh, te teg leen ci siraatal mustaqim xut bu zaman du manqué ci jamono bay laa yawmi diin waaye maqaamam bàyyi nag diwa ko donn dajal na lépp loolu dëgg eh, ndax bàyyi nee na xut bu yëpp buñ gagee moom moo leen jubbanti moo leen gàgganti eh, koo xam ne nii xut bu bi ci yow lay jëlee tëbb ah loolu kooku mënu laa kon xalifa bàyyi amul ci côté ko ko wax nga dëgg mooy koo xam ne doon na lépp waaye boo ne amul mutlaqan moom waxoo dëgg nga li nga wax ah wala man de xaw ma ko man man xaw ma ko woon maa ngi ñaan ko ma ci gàggante waaye man xaw ma loolu te yéen ñu koy wax wax dëgg yàlla ñu ngi weddi seen bopp da nga dégg ñu ne xalifa baay amut te te demee mbir na ñu ne fa nekk mooy xalifa baay ci lu mu ko lu mu ko nekk lu mu ko doon ah, boo dàqee kay da ngay dàq rek waaye xalifa baay amut ah mais ki nekk na xalifa kon nag mu ne xalifaam di zahir am na muy xalifa ci baatin koo moom maanaam koo xam ne ni madar yëpp ci moom lay jaar dem ci mbindeef yi kooku du ñàkk ci kaw suuf bay laa yomi diin bu ñàkkee ci kaw suuf suuf si yàqu waaye lu dul dëggit mooy diw moom mooy kaamil asri diw moom ku ko topp yàqu nga alku nga xamoo yàlla loolu du dëgg wéerut ay caaxaan rekk la yoo xam ne ni ñu ëppal ñoo ko dugal ci mbir yi waaye xamut lu tax ma wax loolu <coughs> mooy xel sax nanguwut yàlla yebal wëliyu bu ma sëkk mu yar ay nit jox leen lijaasa ne leen may man ngeen a yare génn àdduna yàlla yàq ña ko toppoon ñëpp sampaat keneen ne ñi topp kii rek baax kooku bu génnee àdduna yàlla yàq ñi ko toppoon ñëpp sampaat keneen ah kañ lay njub di samp ci kaw suuf kañ lay njub di am ci kaw suuf loolu du dëgg yàlla rus naa nocc ci barke ci fu mu ko def moo tax ku topp diw rek xamoo yàlla loolu du dëgg nit ñi sax waroon nañu yittoo leneen mooy xoote jëmee ci yàlla bañ di yittoo diw mooy nangam ak nangam ak nangam Abubakar Siddiq yonent bi génne àdduna daal ah, saxaaba yi nekk ñun foofu naan kii mooy xalifa yàlla kii mooy xalifa nangam ñoom mbiram yonentu rek sallallahu moo leen intéressé moo leen ñoroon ci loolu lañ nekkoon bu ko defee it Cheikh Tidiane yi doon génne àddina noonu bàyyi doon génne àddina nit ñi nekk ci fayda rek fexe ñëpp xam yàlla te képp ku am ijaaza muy ndigal lu wér nga jaar ci sëriñ ba mu yar la dëgg-dëgg nit ku man nga ku la topp dana xam boromam te ku la toppi dana jubóog yàlla ah, waaye <coughs> dégg nga eh, loolu du tax mukk ñu dàq ne kaamil asri amut ci jamono Euh, lu taxit mukk ñu ne ku topp kaamil asri xamu yàlla kan mooy kaamil asri nag kooku kooku kenn waru ci waru ci dogu ne force da ngay da ngay woon ñëpp force leen ne leen diw moom mooy kaamil asri su boobaa war nga andil nit ñëpp aw lay wuy wane mooma dégg waaye kum neex nga gëm nga refan njot ci ku la neex ne moom mooy kaamil loolu dara nekku ci dara nekku ci boo ne diw moom mooy kaamil asri nga refat ci njort keneen na waxoo dëgg yéen ñaar natt leen seen wax ci waxi baay baay def na defal njort tiyaa ci waaye benn bàkkaar nekkul ci ñaaw njort nag mu ne bàkkaar nga ci waaye benn tiyaa ba nekkul ci boo ne diw wëlli la wala diw yàlla may na ko nangam te yàlla mayut ko ko amoo ci benn bàkkaar xisab abdihali bi bàyyi nettali rek jàngal na ko boo ne diw wëlli la yàlla may na ko nangam te dëgg la am nga ci tiyaab boo ne nag du wël yu yàlla mayut ko nangam taamoo ci loola leer te du dëgg am nga ci bàkkaar bu dee dëgg la amoo ci benn tiyaab kon dëgg-dëgg yàlla yombalal na nit ñi affaire yi li bon mooy sëriñ boo xam ne wóor na ne moom ne yàlla du kaamilaat li nga ne moom mooy kaamilaat ci nar nga nekk ci fen nga nekk wala daal mën loolu xaw ma ko wala koo xam ne yàlla feeñal si moom mandarga yoo xam ne wóor na ne kii ab saay saay la mbiram leer na nañ ndax bàyyi si kaasif daan wet loolu ñu inkaar waaye mu ne leen saay saay kat yi nag seen mbir moo gën a leer ñëpp ñu saay saay yi ñooñu moom boo leen xoolee rek xam ne waxuñ dëgg ba pare nga jàllal bi ku nar koo wooteel leneen loolu ab nar la waaye koo xam ne xamoo ci moom ndëng xamoo ci moom ak réer xamoo ci moom benn safaan nga mën a taxaw rek bëgg lu neex ay nit rek taxaw ne ko wala nga weddil ko ak may gu jugee ci yàlla te yow laajoo ko waxtaan ak moom xamoo ci loolu leer dëgg-dëgg loolu du dëgg bàyyi di si jamonoom daan wax daan wax gars yi ne bu ngeen déggee dara ñëw leen maa ngi bu ñëwee bu ngeen gisee ne ngeen door maa bu ngeen gisee ne affaire dëgg la dëgg topp rek moo ko wax loolu rek la nit doxee si jamono bu nekk boo demee ba mën a jël sa euh, làmmañ ne nangam du dëgg rek war ngaa fexe jàkkaarloo waa jooju ba xam wax jooju dëgg la wala du dëgg waaye weddi loo xamul bokkul ci maandu su ko defee nit ñi <clears throat> nañu moytu ñaar mooy ëppal ci wëllu yàlla wala mànkil ci xaqi wëllu yàlla bàyyi neen ku yàlla may rek ñaar yi ñoo ñooy xarak nit ñi benn ay nit ëppal ci moom ba far yàqu wala ay nit mànkil ci xaqam ba far yàqu ñu baax rek moo ñu digg doomu yonent yàlla Iisaa bu mu ñëwee am ñu ëpp ñu ëppal ëppal ba ne yàlla la waxuñ dëgg am ñu manquil manquil ba ne doomi njaalo la te waxuñ dëgg loolu rek fi nekk fi mu nekk ni am na ñoo xam ne ëppal lañ ci bàyyi ba ne kaamil asi dootu amati te bàyyi bindul loolu bindul loolu <coughs> mos naa si gis benn waaye bu taxaw di ko wax ne ko sëñ bi lii demeewul noonu nii nii de mu def ci waxtaan waxtaan xam nga mujjam moom danaa wax ne bàyyi rek la waxtaan fu mu mujj ko xadis bu bàyyi andi mu ne xadis bi wérul kay bu fekkee bàyyi rek la kay waratoo déglu ki rek <laughs> dem na ba commencé daq xadis yu hmm? xam nga góor yi ma gëmu la léegi yaa ngi koo xam ni moom du sax ab xam dëgg de mosuma gis ku ci mën a waxtaan andi ci lay wér te man mosuma si bañ waxtaan ak kenn ay mosuma koo gis kaamil asri amut wala lu ñuy séddoo mosuma gis ku ci nangoo waxtaan mën ci indi lu leer kon nañu wax nañu dëgg waaye nit ñëpp yàqu nañ diwa la nit ñi war a topp mosuma gis fu mu nekkee dëgg loolu am na jamono bu nekk ajumati jamono jooju dana feeñ nit ñi danañ ko xam ndax ku ko topp da réer waaye waaye bëri na jamono yoo xam ne xamuñ sax kuy kuy kaamil asri su ko defee. <coughs> su ko defee ki ma yërëm mooy koo xam ne dëgg rek ko tax a jóg ñii duñ ko sopp ñee duñ ko sopp kenn du ko sopp ñëpp koy ngañ ki gëm ne kaamil asiraam na te ëppal du ko sopp ndax danaan kii dafa ki gëm ne kaamil asir amut du ko sopp ndax danaan na xalif baayam xalif daal boo ko waxee bu ko benn xalif su ko defee mu ngi noonu <coughs> yàlla yàlla may dégg yàlla may njub xaala wax na fa ma fi zamanina hada waaye suñ jamono ji faqad aala amru mbir mi dem na illa anna man lam yakun koo xam ne nekkul muridan taalibi xattun mukk yeddaani di woote ak cheikhuq ak sëriñ tey nag wax na ne taalibi dafa war a dem ba mat door a yaraate léegi nag yaay toll ci jamono yoo xam ne ku musu nekk taalibi moo naan sëriñ la ku musu nekk taalibi nekkoo taalibi kenn yow jaalal bi koy sëriñ la mos naa ko fi dégg koo xam ni mu ne moom kenn yaru ko bàyyi ko yar bàyyi ko tarbiya direct xamal ko yàlla moo ko doxal sëyru moo ko doxal nangam ak a mën a nar bu hmm? ko bàyyi yare bu hmm? <coughs> ko bàyyi yare ci Cheikh Tidiane bind ne solo mu wane doomu aadama say nit yi jamono seet leen ci ñuy dund mu ne képp kuy sukkandiku ci waxu wëlli yi gën a àdduna bàyyi ñuy dund ci alkaande rek ngay jëm doo jëriñu léegi nag loolu moom moo ñu lor lépp lu yàlla may rek xool ko ci ñuy dund sa jamono dafa am yoo xam ne du am ñaareel waaye dafa am loo xam ne du ñàkk ci kaw suuf bay daa yombi diine ba penc meel yow xoolal sa bëtu xol rek defal njootu daal ak kenn dafa am loo xam ne du manqué ci jamono bay laa yawmi diin ma am maqaam yoo xam ne duñu am ñaareel bay laa yawmi diin Cheikh Tidiane ne lii wane ne sab waliyu jamono nga war a xool mooy xaddis yonent mu wax laajal borom xam-xam yi jaxasoo ko kumaaw yi àndal ak kubaraaw yi Cheikh Tidiane nee na ku dee kenn du ko laaj kenn du jaxasoo ak moom kenn du ànd ak moom kon say borom xam-xam xool ko say borom xam-xam yi jamono nga dem jàngi ci ñoom. imagine ku bëggoon a jàng ren da ngay jàng ci koo xam ne génn àdduna nooy def da ngay àll doo am dara noonu la demit su ko defee <coughs> ñoom ñëpp dañ laa jàngal ne ko amul sëriñ seytaane mooy sa sëriñ te sëriñ bi seet ko ci kay dund yow nga mën a taxaw nga ne bàyyi la yar moo la tarbiya moo la defar séeru tax doo xam nga du dëgg de am na mooy moom la bàyyi bind nii dañ ko xamne musu nek talibé mune mom serigne la mune mom serigne la ويخبر من خبار بشيخو قد سيسرين الجهالة نورير ني ودلالة ني سانك ني من جهالة تي تغير مني دفعنا فك نورير ني قمو دارة مني لن من سرين لا أما تخمنا ني مغنى يرم ويني خمني du la ñuy xool li jaadu ñu nekk ci dañoo jàng waaye dañuy dégg rek ne noonu la ne noonu la lu leen nit ñi wax rek ñu ne noonu la dem fekk ku réer ku sànku nga ne ko sëriñ la waaye nag ci lan lay xibaare min jaxaalati ci réeram wa dalalati ak sànku moom dafa sànku réer ba pare xool ñi sànku réer mooy leen kaaleel sëriñ la foo jëlee sa may ci yàlla direct bàyyi sax dafa am ijaaza boo demee ci téere mu bind ay ay fi mu jaar ñu may ko ndigal hmm? waxuma la keneen ku dul moom <coughs> lu tax na muy def loolu mu ne xeesal ngir xiir al intishaari zikrihi ci tasaaroog tuddam turam wa shuhrati ak siwam wa kasrati muridihi ak bërik taalibam bëgg rek siw bëgg rek nit ñi di ko tudd fu nekk bëgg ñu ne na taalibe yu bëri moo tax mu su nekk sëriñ di woote ne sëriñ di woote ne sëriñ la man nag man nag saa yu ma gisee ku yëg ca kaw tànk balaay jàpp rek wan ko ne ko yëgu ko de yaa ngi ci fenêtre bi xamoon ñoo xam dañuy gëmmant dañuy dafa mel ne dañuy dañuy gént dañuy ñëw ci néeg nekk ci fenêtre bi ne ñu ngi ci kaw terrasse nga naa ne ni doo ci lex bi mu yeewu ne ko yaa ngi ci fenêtre bi de <coughs> moom xam ne mu ngi ci fenêtre bi hmm? <coughs> lu mel ni am na dal na ma yoon yoon dal na ma koo xam ne taxaw na ci mbooloo mu bari moo xam ne ay taalib bàyyi rek fa nekk ne moom bàyyi rek ko tarbiya moo ko yar moo ko nangam amul ci kaw suuf tey ko gën a xam nangam nangam nangam mën na ko dér yow laa dér sax xamoo ko dem na ba commencé woote mazhab ngir tuddee ko mazhabu al xaq xaw ma mën na ko déet am na masala yoo xam ne sa ngir mi mënu koo réglé de mu ne ah ma ne ko werante xuuxaan fi ci ngem bisimilah mais masala mi ko ne loon di ba léegi fa la ko bàyyi moo tax man gisatuma ko muy wax ci mazhab bi alors léegi li ma ko dégg muy wax mooy bàyyi kenn du ko doon loolu dëgg la ci côté mais kaamilaas amul ci kaw suuf du dëgg ci côté ku ci am leeral na ma ko leeral ndax bañu ma ci waxtaan <coughs> kon su ko defee nit ñi nañuy delluwaat ci cosaan yi dem jàngi ba pare yem fañ war a yem wax dëgg te yàlla tax dëgg gi lu mu neex neex nañ ko wax lu mu naqari naqari nañ ko wax <coughs> waqat jaalu def na hada shan al bi leen mbir mu màgg wa sanaa ak tagg al jazima bi aju rëy laxiba sibyaani muy foo xale yi wa doxkata muy loo xam ni dégg dafay reeloo seytaane xatta yatawaara suufu bañ koy donnante maanaam mbir mu màgg mii di affaire xam yàlla ak jege yàlla ak jaamu yàlla du affaire askan du affaire leneen ag leneen leneen góorgóorlu rek la affaire bi góorgóorlu rek la te ku góorgóorlu yàlla may te amul maqaama gis nga bu fekkoon ne xutbu zaman amul ci kaw jamono imaam asan du taxaw ne tey maqaama yi ba ci xutbu zaman boo ko yàlla yàlla may la ko loolu yëpp dégg imaam di ko wax wala yàlla ñëpp ñoom ñëpp ne nañ bokkut bu zamaan boo ko ñaan yàlla yàlla may la ndax yëpp lépp nga fi nii tey affaire damay jaaxal man gisuma borom xam-xam bu yeewu bu wedd loolu de mais ñaareel ñi xam nag damay ragal ne kasratu daaw yi yu bëri yi nga xam ne ay caaxaan rek la ragal amatu naa si sànq moo tax seen discours du bëri ci côté boobu ndax rek ñu ëppal genn gu ni golo gu ñu gis ne xut bu sama la amaana loolu mooy tax moo tax dañ nangul ngànt borom xam-xam yu bëri ni Cheikh Zaruq defoon rek loolu yaakaar naa moo ñëwal ci jamono Cheikh Zaruq dem na ba ne tarbiya amatul te wóor na ko ne tarbiya daggut mhm. mais yàqu gi bëri woon ci kaw suuf ci buntab tarbiya moo taxoon mu tëj buntu boobu benn yoon tiyaaba rek la ci jëlee du ñàkkit nit mën naa tëj benn bunt ne amatul ndax gis na ñi ci yàqoo ñu ëpp ñu ci jëriñu ndax ku leen koy woote caaxaan gu leen ci am te tamit nit ñi amatuñ ixlaas goo xam ne mën ngaa topp nit te doo yàqu ki ki mën a topp mën a gëm dara te du yàqu mooy koo xam ne yàlla rek ko tax a jug par parloo dafa rafet njort ci waa ji topp ko te yàlla tax bu waa ji matul yi dana mat mm-hmm. waaye koo xam ne wóor na ko ne moom ci boppam xam ne kii li mu wax ne du dëgg mu topp ko ci caaxaan googu wala boog affaire sëriñ bi matul moom matul ñoom ñaan ñëpp a yàqu mm-hmm. amaana ñoo xam ne lii moo tax ñu tëj buntu boobu wa illa bunt boobu du bunt bu ñu tëj ndax buntu bu yàlla ubbi la mm-hmm. te it du lu ñuy donnante du lu ñuy bu mu neex la bu dee du neexul la demeewul noonu te maa ngi ñaan képp kuy wedd na nga loo xam ne wër na la du dëgg mm-hmm. wa illa mën ngaa yàqu doomu aadama kenn du ko xeeb <coughs> kon su defee mbir mi dem nañ ba def ko comme ay fo mel ni lu xale yi fooyee di loo xam ni ci la seytaane di reyee nit ñi muy affaire tasawuf dem na ko toll foofu nga di ci liggéey caaxaan yu jéggi doyoo ku nekk ci caaxaan nag taxaw ne moom bàyyi lay liggéeyal fekk wallaay bàyyi lay xeex gis nga ku ku bëgg nit da fiir ci mbiram doo nangu mukk lépp loo xam ne indiwoon na ko ñu dindi ko waaye doo nangu mukk loo xam ne boolewut koon ci mbiri ñu boole ko ci ku bëgg nit noonu ngay def da fiir ci mbiram yow da ngay xool lam nekkoon nga jéem cee nekk bu neexee nit ñi nekk ci bu naqdee nekk ci waaye bëgg nga nit mu bind dara nga taxaw weddi bu subaa noo koy saxale te mu wër na ne moom nam nekk mooy dëgg bëgg nga nit lii wër na ne bokkul ci ay mbiram mosu koo santaane yow nga ne noonu la demee weddi ko war ngaa mën a ànd ak nit di waxtaan ak moom di waxtaan ak moom di ànd ak moom ba mu dem weddi bàyyi nga ne koy arrêté aret li nga wax ni mom eh, hmm? bi mom wérut nañ andat loolu nga ànd ci hmm mom nga ànd ci rawati rawatina bu fekkee ñëpp bi and ni waji waji li mu wax deug nit mo leen ànd yéen matal ko tek ko seen kanam ba pare ne lu wax deug la tay ngeen ñew li mu wax ni xamut <coughs> ah, nañuy wax ci xam-xam kon mbir mi dem nañ ba diko donante kullama maata saa yu génne àdduna waaxidun kenn minum ci ñoom kaanoo nekkoon nañu lii suuna di toogal ibnahu doomam maqaamu ci taxawaayam ba kaana nekk na saxiran di xale aw kabiran wala mag gis nga li Baay wax ni bu njëkk su waajur génne àdduna doom ja ñuy teg bàyyi la mu génne àdduna Seydi Ali la samp te doomam mate woon na ko waaye Abdoulaye ku ne xam na ne bu ko defoon xalifa mat na xalifa mm-hmm. bàyyi waroon jàngale rek ne wiraasatu bu mu ko jëlee ci ak ndoomoo rek waaye wiraasatu ci sitqu lañ koy jële ci sitqu lañ koy jële yonent bi sax sallallahu alayhi ba muy génn àddina bàyyi def na yonent def na yàlla mooy sama xalifa ci yéen ndax mu ne xam na ne am na ñoo xam ne nii ñu ci biir xeetu yonent bi ci yàlla lañ jëlee xam-xam dara te kooku kooku kenn kenn mënu leen wutu ci yonent bi sallallahu alayhi xeetu yonent bi alhamdulilah yàlla may nañ ko nangu nañ ko nangu su ko defee saa yu nit dee dañu jël doom ji teg doom ci xale laa mag la moom mooy mooy sëriñ ba léegi loolu lu ñu war a lu ñu war a parce que bàyyi ko ñu ko contour bàyyi ji doom ji mooy sëriñ bi kan mooy doom ji bu fekkee matee na ko dee ndaw lu baax te rafet bu fekkee matewul ko ndaw bidaa bu réer bu bon wayal ba suuna ñuy sol minu ci moom alxiraqa ay ay sagar bu njëkk ɓuran jebbuli sisen dañay ñoo musoral la yére yére boo mooy waane fasante nga kulli rek moom di barkeelu ci loolu ma la solal ñu ne bu bàyyi jigéni àdduna rek ñu ngi ñëw doom ci solal leen yére ya su ko defee <coughs> simit yooyu su ko defee ñuy barkeelu ci yére yooyu wàccee doom ji wàcc waaye bàyyi ji te doom ji mélul ni bàyyi ji mm-hmm. waaw waaye te barako na ñuy barkeelu bii ci moom mm -hmm. wuyun si doon ñu di ko wàcc manazir al mashayikh wàcc waayu sëriñ ci bàyyi ne faxas yi lii musibatul musiba la bàyyi ji gënaat na doom ji ñëw na ci moom la ñuy barkeelu <coughs> jébbul lañ ci moom mooy wàcce ko nag fa ñuy wàccee sëriñ ca te yeggu fa bàyyi ne lii musiba hmm? mu ne wala ala hadihi tariqa maana bi la yoon xad maata deena fan tarasat mu ràpp asar waaye jeexitam wallaahu yàlla alamu maa ji xam bi axbaar yaa ci ay xibaaram mën nga cee dégg ñaari dégg-dégg benn bi mooy ñii doon sol yére maanaam sëriñ bi balaa ngay jébal ci moom mu solol yére loolu bu deen tarixa tarixa bi moom amatul jógee na yàlla xam mbiram dégg nga wala nga ne dafay mbébét <coughs> di yaakaar yàlla ràppal lii bu bàyyi jógee rek doom ñëw doom ji mate na ko mate wu ko ñoom ñëpp loolu eh, seen yoon nekkut bàyyi jugee rek doom jaay sam mu ne yoon wi yàlla na fi jugee mën naa nekk ñaan yàlla na rab ba nga xam ne dañuy dem ba yàlla rek xam ay mbiram su eh, boobu moom lañ doon ci tafsirtul anaam muy wane ak sëriñ balaa nga ko doon da nga ànd ak sëriñ ba mu gërëm la bu la gërëmee jiital la nga mën a nekk sëriñ waaye mosoo nekk taalibi ne da nga nekk sëriñ wala nga nekk taalibi sa sëriñ jiitalagul la nga jiital sa bopp da ngay nax sa bopp rek jeexal ak nit ñi war wane ne nag nit dana woote ne sëriñ la euh, fekk dafa bëgg siiw rek bëgg daraja yàlla nag <clears throat> dafa am nu ma leen wax ne dana koy wax na ko te bu ngeen seetee seen bëti xol da ngeen ko gis mooy kenn du woote maqaama ci diine te du dëgg lu mooy yàlla seede na dëgg la wala du dëgg moo tax nit del xool ci sa xol waaye bul xool ci sa bëgg sa nafsu sa bakkan wa kafa billahi shahidan la yàlla wax maa kaan allahu li yadara almuminina ala ma antum alayhi xata yamiza alxabisa min altayib yàlla du leen bàyyi rek ngeen jaxasoo lu mooy dana ràññale xam ñi saay-saay ñi ak ñi nekk ci dëgg laa yi ñëw ci wane ne alquran Euh, lislaam kenn du ci woote du dëgg lu ma yàlla feeñal na a ya'lamanna llaahu allaziina sadaqu wala ya'lamanna l-kaadibiina bëri na bëri na moo tax nit bu wootale yàlla lu dëgg yàlla dana ko gàccal waaye dana ko dëgg ci moom dana gàccewu ci kanam ay doomi xetam yàlla dana ko gàccal fësal mbiram ba nit ñi xam ne kii li mu wax du dëgg waxam dafay wane kii maqaama bi mu wax du dëgg jëfam daf koy wane xam-xamam daf koy wane xaalam daf koy wane ndax inna laa tayyibun laa yaqbalu illaa tayyiban mënoo nax nit ñi yàlla tàggal la nga di ko jaamu di ko sellal di baax ba ku la xool xam yéem la ah loolu mun nekk moo tax caaxaankat yëpp seen mbir aw daxu min chamsi duha moo gën a leer mbiru jëntam eh, jool lool koo ku ko jël nag teg ko sa kanam wooteel ko dara te wóor na ne dafay jaaxaan nga loo rek yaa moom ñu da ngeen alku maa ko yàlla sutural gisoo ci moom lenn lu ñaaw dafa nekk ci dëgg rek bu nekku ci dëgg rek yàlla weer na ko hmm? kooku maandu ci wala boo demee ba nar dal ci kawam demal nga test ba mu wër na lii du dëgg nga door a wax loolu moom moo di maandu moo di ragal yàlla in uridul islam wastata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh